ñi nga xam ne yéen a ngi ci tale yi di waxtaan jamono ji nekk ñi ngi gis ne yéen a ngi offensé mag ñi bu baax a baax ndax dañuy gis ngeen di nettali sa yoo xam ne diwa ngi jébbuloo barab sàngam gaynde sàngam te li ngeen wax lépp dara du ci dëkk kon ñu xam ne mag ñi àndoon ak Serigne Touba ay góor lañ woon yu set wecc ba jaayante jafe lañ jaayante ak Serigne Touba te kenn ku nekk judd bu baax nga nekkoon ci ci jàmm yàlla nga nekkoon ci ragal yàlla nga nekkoon kenn ku nekk mën a sippi sa dara ji jooju ci karamu Seexul Xadim kon nag koo xam ne sa maam daa amul judd bu rafet wala nga jàpp ne maami keneen daa mu juddu bu rafet da waxtaan ci sa maam waaye maami jàmbur yi ngeen di waxtaanee di ca wax ay safaan man naa ñàkk yéen ñiy wax kenn amu ci sa maam amu ci juddu bu kon ñu xam ne seexi sëriñ Tuubaa yii moytuñ kenn koo xamante ne siine danga ci jël kàddu di ci wax lenn lu jaaduwut ñu xam ne mbooloo mi yëpp nag maase nañ takkoo doon benn fas yéene liggéeyal seen maam ci défendre ak taalibe ak lépp waaye nag ñu xam ne it mooy ñu kenn koo xam ne sal da ngay yëkkati sa cadre di ko yëkkati ci mag ñi ci loolu wérul jaay <laughs> <laughs> ku ne bu nangu woon la la nga xam ne moo tax nga am ko bu ko nangu woon nga nga nga dem sàmm yi nag koo mën a doon man mii laa wax man li ma doon sëñ bi bu ko nangu woon xaw ma sax dana am nag li ma sàmmam bi dañ kaa tekki dara man dama xamul li ñuy jaay lu mu doon <laughs> lu waay di jaay lu waay di jaay comme lu loo jógewul ci sëñ bi wax ko neen man li ma am sëñ Tuubaa joxuma ko foofu la wax bu sëñ bay jaxati ñëwee bu sëñ bay jaxati ñëwee coow coow li coow li gën a gën a fay sëñ bay Diakhaté li mu wax amul benn murit bu ñemee tax jamono ji wax ko.